lan nga xalaat ci gestion Moustapha Niasse ci par AFP. Euh, su ma sañoon dañu jël affaire AFP pour l'instant teg ko ne. non mënuñu ko teg na hmm? suñu kilifa ñu jox ko ci te dañ mukk mu diir àdduna nit day am kilifa. nekkul moom moo yàq parti bi wala. non dama ne àdduna nit day am kilifa suñu ñu yoree ñun àdduna du yàgg yàgg yàgg bu Moustapha Niasse déggu lu ñaaw jóge suñu jamais de la vie. waxuñu nga wax mooy yàq moo yàq mooy dama ne côté boobu si côté sa Niasse du ma si sori. amul benn xalaat ci gestion parce que sama papa la gestion mooy lan. gestion parti bi par exemple. mais am nga ci sa xalaat parti bi parti baa ngi dund. ñoom yaakaar nañu parti baa ngi dund. nous nous sommes plus à la quand tu me poses une question. pose-moi une question sur cap 2024 ak fan lañu sentiment nga am ci koo xam ne APR AFP moo ko formé en tant que jeune jeune politique mu nekk ci di il s'est battu imposer boppam ci Rufisque ba mu dëkk ñëw di en di ñëw di ñëw di ñëw ba moment boo xam ne yow nga war a toll foo xam ne da ngay dëggalee saw parce que sénégalais yi pour ñoom il faut nga dem ba am benn âge yi pour mën a di prétendre yenn poste yi taille les bi noonu comme ça. ban ban sentiment nga am parce que. a un problème de ok muy fa ma dëkk muy fa ngeen dëkk keneen ak keneen. c'est ce problème qui se pose. Mhm. man en 2012 amul lu ma dajalul Macky Sall te nga bi ma dëkk kenn xamul woon kenn jéegandoo rek nga doon géeg mais anam tey.